tey nag tey fi tey ki xewle moo di tafsir Mamadické Seck ak doomam ya rahmatullahi alayhi sëriñ Ousseynou Khoudia Seck noo ngi toog ak xalifa bi ci ndigalu kilifaam yépp dale ko ci xalifa général ba ci suuf feggoo ak i rakkam dëgmal si na bis bu rëy bisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te moo di bisu sëriñ Ousseynou Khoudia Seck nekkoon di juróomeelu xalifa maam sëriñ Thiénaba Ahmadou Ndak ñu fas yéene ko def ren samedi ñetti fan ci mois de février 2024 ci place publique bi nekk ci ba loolu tax na ba ay ndaw tukkee ci dëkk bi bàyyi ko ci Ngañ kan mooy Ngagne Sarr alhaaji ngañ demb Sarr di sët ci tafsir Mama Dikka Seck wala sëtaat di sët ci baay Ousseynou a Seck borom bis bi jëm si ci kan xalifaam te mooy Serigne Momadou Seck Roqaya lan moo xew alhaaji ngañ Sarr wax ni kii di xewle te mooy Serigne Momadou Seck Roqaya sama nijaay la ci askanu maam Serigne Cene ba Ahmadou Ndak loo tax na ba moom sëriñ Ngagne wax ni ñeewul kenn ci nijaay ndax Serigne Mamadou sekk Roqaya nijaayam la te mat na ko nijaay sëkk mu bëgg ko lool fonk ko ngir itteem ci diine ci ngir itteem ci tariixa maam Serigne Cene ba waaye ngir itteem itam ci biir Cene ba loolu tax na ba moom ci boppam mu warlul ko at mu nekk mu wax ni olof njaay nee sot domp ci sot la bokk kon lii mu fas yéene dégmal mu bëgg cee somp boole ko ci xeex bi te mooy sot yàlla yàlla àggaleel ko bëgg-bëggam yëpp ci kaw loolu nag mu jël teraangayu tool toll ni yem fi daan indi wala yu ko ëpp warlul na ko woon gàmmu gu jot mu yëkkati mbub mi nga xam ne moom lay sol ci cérémonie ba jox ko ko ngir jëmmi yàlla ak rasulillahi ak bisu sëriñ Ousseynou Khoudia Seck waaye akook matam moom sëriñ Mamadou Seck Roqaya Alaaji Demba Sarr wax ni ren nag ku yokkul ya wàññi dina ci dolli lu demee nii teraanga dana ci boole ñetti saako yi ceeb ak fukki keesi boisson ak fukki paqueti ndoxu butéel ak bidon diwlin vingt litres jàppalee ko ko ci bis bi ak leneen lu ko yàlla wërsëgale lii kàddu la yu ci alhaji Demba Sarr jëm ci nijaayam te mooy Serigne sek Seck ya nii nga xam ne nag nila ko koy defale ñëpp defal na ko ko moom mii tey dafa ayle waaye defal na ko ñeneen avant lii te dina ko defal ñeneen ci jamono yi ñu jëm ndegam soob na yàlla suñu borom subhaanahu kon du def rek lu dul wax leen ñi nga xam ne nag ñoo fekkee teraanga ji bokk na sëriñ Moussa Seck sek Moussa Seck mooy xalifa maam buubu Seck di liggéeykat bu mag bu jëm ba jël retraite àndaat ak ñun fii ci jataay bi fegoog Baye Ibrahima Dieng ak Baye Abdou Kane di mag ñi nga xam ne ñooy wétali sëriñ Modou Seck ak Serigne Babacar Ba ak Baye Papa Kane ak ñoom Serigne Thiontal ak ñi ñëwoon léegi te jataay bi jotu leen fay fekk kon bala may sori ah, nu jox kàddu gi Serigne Mamadou Seck Roqaya mu delloo njukkal ak Souleymane Serigne Souleymane Seck mu bàyyi a xaar di mbokk ci Ngagne Sarr léegi Baye Mamadou sekk lii la sa jarbaal waxoon ni bu nu nan la ko wax. min seytaani bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di wax euh, sëriñ Mor jërëjëf di wax sunu bokk yi nga xëy noonu ñoom lañ ko seqal ñu toog commencé ko si Moussa jageen jëf di wax itam Serigne Demba Sarr jaajëf yàlla subhaanahu wa moo dogal li mu dogal nu bokk ko ci bokk seq ko it ci kóllëre jàpp naa ni bu ñu nee kuy kuy ngañ saar rek bu ñu tuddee sëñ Bakar Sarr ni mu doon imaam ci jàkka ji nu jumaa ji nu jàkkaar lool ak sunu mag ju baax ji wéy juram di soxna Xadi Sekk kon mu am teraanga ci dëkk bi du yéeme waaye it mu teerle fi du yéeme ndax Thiénaba gii giinu ne tey bakkan bi fi gëj jëkk ganee àdduna mooy maamam Yaasin Sekk mu soxna Ramata mu jur soxna Xadi Sekk mu jur ko kon teraanga yi dëkk bi noo ko bokk ci saay rek ci baatin maa ngi koy remercier nag di ko delloo njukkal di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yéen yàlla gën a guddal fanam yàlla dolli wéram di nag ñu ko bokkal ñëpp di ko tàmbalee ci suñu kilifa ñëpp muy bàyyi sëñ Assane Seck mi nga xam ni jotaay bi mag ñi toogoon moom moo ko tooge yal ko yàlla yàggal du dolli ko barke. Eh, cër bi mu ko joxe te nu bokk cër bi donc ci gërëm di ko sant ndax teraanga la boo xëy nun ñëpp na ko bokk. yal na yàlla defal ko ci jàmm dafa ko sutur dafa ko ci xéewal di saar bokki bokki yëpp at mu jot mu yëkkati teraanga yët ma muy yére ma di ko sol ca bis ba tey jii mu ci boolee loolu ma ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dolli jàmm te boole na ko di leen sant yéen ñu ko teg seen loxo di leen gërëm di ñaan yéen yàlla yàggal seen taxawaay dolli seen sutura ci barke yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu nag dañoo mun ta fay askan wi nu yàlla boole ndax dañoo baax rek te bëggunu di jël ay tiraanga dinu ko jox dëkk biit it mel noonu noonu ci nun nuy kon nun suñu cant daa laaj dëkk bi yëpp sant leen ñaana leen yàlla subhanahu wa taala yan yaa doolu seen jàmm ak seen yiw fii ma toog mbu mii ma sol sëriñ Jibi Seck moo ko lem yónnee ma te xam na ni ñàkk yére taxul mu def ko ngañ saari lii mu def xam na ni ñàkk ko taxul mu def ko daa xam ni noo ko bokk bu jël teraanga yooyu dinu ko jox yal na yàlla barkeel leen ñoom ñëpp te ku ci ne rek seq na maa yow ay teraanga yoo xam ni ci yow la bàyyi ko maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ñaan bis bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm te lépp luñ ca ñaan yàlla na ko yàlla nangu donc ko duppee tey ren sunu maam tafsir ma dikke eh, yàlla mi nga xam ne mooy barkeel yàlla barkeel yaan yàlla doolu nu sutura doolu nu yiw réew mi fi mu toll ci yëngu-yëngu yàlla mi nga xam ne mooy seddal yàlla na ko yàlla seral teman ak jàmm nu seq jàmm ci barke yonent saa salaam noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mamadou Seck Rokhaya di xalif bu sëriñ Ousseynou Khoudia Seck sëriñ Thiénaba euh, El Hadj Ibrahima Gueye euh, gis nga tey jataay bi xew tey ci pencum Thiénaba euh, nga fekkee ci lu bari di ko taqoog El Hadj Ngagne Sarr waaw noo gisee bis bi tey yow. El ngi sant yàlla bu baax subhaanahu wa di julli ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bokki julli di fi toog yëpp dale nag ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy borom dëkk bi Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Assane Seck ak ñim ko séqal ñëpp waaye dalee ko egg si nag ci ki nga xam ni mooy borom bis bi tey di alhaaji Serigne Mouhamadou Rokhaya sekk nekk xalifa Mama Dikke yal na yàgg lool sekk euh, te ànd ak wér mu toog fi nag ci waxtu wu nekk ci moom di jàmmanteeg moom am ak moom jàmm ak sutura teraanga xanaa rek kon moor nu tagg yonant bi nun ta ko ci bi sidula walina yontu yàlla mamadu wa saydul axirina yonnen wa imamil mursalina kenn du yonen ba njool makka laqad qasama allahu siyaadata fi l asal borom li waawul hamdi li axmada wal ihsaana fi l xawli wal amal fa lillahi ma asda wa lillahi ma basal simalul yataame wal masaakin lam yasal Mamadou Moustapha baaxi baay baaxi maam baaxi àndandoo borom li waawul am di ulur bi li wa taqwa waahlul fadaayili isaabatu asfaaxin wa xayri wa naayili samat bi xaboolil aq min xayri xaayili axarat li ayaati loo wa dalaayili biyaasub utalxun wa tariixun wa taw asalaamualeykum wa rahmatullah tegal nu ko ci loxo Serigne Mamadou Seck Rokhaya